mais mm. tout ce qui vient de de ces gens-là j'aurais fait impasse pourtant volonté bi ñëw ne rek na ma bëgg a dimbale parce que dama sonn doyoon na di condition bi ñu ci doolee que il faut un papier du chef pénitentiaire là boobu ko mën a ba ndee sama xel moom man je le demande pas. yow en fait lan nga dem lan nga lan nga. j'ai demandé les libérés on parle pas de détenus en plus. les libérés les libérés on commence par les détenus jusqu'à présent dans les courriers mais c'est les les libérés. ah mm-hmm. dès que tu à le dire rek on te prend. en charge on n'a pas besoin d'un papier. defal de santé wala. de celui qui t'a. Hmm, ok est-ce que woon bëgguñu woon aussi mu bañ a jaxasoo mais en tout cas c'est une bonne chose. mais mais mais ki ñëw ki ah, ñëw ki ah. ñëw. da leen di wax ni lii laay jàmbat wala yéen da ngeen ko defal check-up. ah check-up ci ci noonu consultation normale. gratuit gratuit. gratuit on hmm. prend 5 le matin 5 le soir. Ah Et si on trouve des trucs, il y a de collègues du gynéco jusqu'au dermatologue. Qui mais se yo, sont mais, mais lol, mécénat, parce que finalement. Mais 5 euh, personnes dans une journée, c'est rien. C'est rien beaucoup. Bon, c'est rien, on continue à manger. Ni wara fat, ni fay sen khalis. wara moo tax man ne leen ñuy ñëw 5 ñu boole leen ci anonymement. ñu boole leen ci doo leen xam par jour. voilà 5 le matin 5 le soir. bu laajee yeneen analyse wala ay rajo. on réfère il y a des gynécologues il y a des gens se sont signalés. les dermatos et autres ñëpp ñëpp ngi ci biir tel rajo yeeg yëpp yéen a koy jël en charge rajo li ma am yëpp daal la ma leen koy wax rajo échographie euh, analyse de sang yooyu moom vraiment ah, loolu am na solo léegi ah. nag am na ay collègues yoo xam ne aussi sont portés volontaires di ñëw di ci jàpp non li ma bëgg mooy bu ñu paree ci lii on n'attend même pas que les gens sortent il faut qu'on aille là-bas à la source waaw à la pour les aider. boo xam ne lii mooy indi maladie bi. waaw xaar ba ko nga dindi ko. Mm. léegi il faut qu'on voit mais mais c'est là qu'on aura besoin des autorités pénitentiaires. quels mm-hmm. mm-hmm. euh, sont les droits d'un détenu mm-hmm. d'accéder à des soins. bien sûr mais pour l'instant pour l'instant yan pathologie tout ce groupe là on fonce vers le surtout dermatologie. yan pathologie ñoo gën a fës ci ci ñi ci les anciens. waaw surtout les dermatologues waaw. oui oui nee nañ day am ay hématose mais yan pathologie ñoo gën a fës pour l' instant. <laughs> ah du du lu ñuy wax. ok bon ok on met une parenthèse ñu tëj ko. ñu tëj ko kon euh, dafa xaw a doy waar. baax d' accord bon et puis les troubles surtout surtout y' a beaucoup de séquelles golo la ñuy def derrière une grille. mais docteur nit nit boo boo yéex Maria boo yéexee yeewu. ki la njëkk a yeewu tëj la ginnaaw fàtte la dem ak caabi ji boo deful nak nga dof. kër ga sax sa kër biir kër laay wax sa biir kër. waxtu bu ne la fii nga nekk euh, booy saw def dara ñëpp di la xool. Euh, kay di nekk foofu di décidé te te foofu def naa redressement la ñu yaakaaroon ci boole milieu boo fenn mais foofu de day yokk bone bone xam ngeen bone